génnuñ benn arrêté arrêté boo xam ne léegi marché Yoff dañ ko tijji à partir de 17 à partir de 7 heures du matin di ko tijji à partir de 18 heures Non, tamit def nañ ko sa quai de pêche Yoff parce que fofu lañ gis ni ñu fay dajé mais tamit ñooñu ñu tamit nañ fa yóbbu ay produits pour gëna sensibiliser nit ñi on nañ wa marché bi waxtaan ak ñom ci mesure ñu war jël fofu on nañ tamit wa quai de pêche bi waxtaan ak ñom parce que ñun lepp lu ñuy def dañuy waxtaan ak les acteurs ba pare ba jubbo soog def dal ñom ñëpp biñu ñu waxtaan ak ñom jubbo nañ ci lolu bon dinañ tëj marché bi dinañ ko ubbi 8 h 7 h di ko tëj 18 h quai de pêche tamit dinañ ko tëj 7 h di ko tëj 18 h loolu lépp biñ si waxtaanee donc jël nañ mesure yooyu mais ñooñu ñëpp tamit nañ leen jàppale si ay produits pour donc gën a mën a cet gi mën a nekk foofu gendarmerie tamit comme ñooy suñu sécurité il faut ñu sóor leen dinañ renforcer waat tamit poste de santé ak centre de santé parce que ñi fa la ñuy dajaloo lu mel ni préfecture tamit nañ leen jàppale si produits yi nga xam ne tey dañ bëgg daal mu law si commune bi yëpp euh, bi passé dañ demoon jox daara yi ak poste de santé ak centre de santé lu taxoon ñu joxoon daara yi dañu bëggoon donc sëriñ daara yi téye xale yi si kër gi moo tax bi ñu jox leen ceeb joxaale leen de produits et tout ça wax leen ñu téye xale yi si kër gi waaye dañoo seetlu ne xale yi ñu génnaat ba léegi loolu tax ñun tamit bi yoon dañu bëgg dinañ fa demaat d'ici suba joxaale leen tamit ceeb joxaale leen enveloppe pour donc ñëw ñu mën a fixer xale yi ñu bañ a génn parce que xale yooyu bés bu maladie bi maladie laal leen pour mu tasaaroo si dëkk bi day parce que kër gu nekk la ñuy dugg loolu moo taxoon ñooy nañ dem jox sëriñ daara yi ay jumtukaay yoo xam ne dañ mën a toggal xale yi ñu toog foofu si biir. tey nag loolu ba le passé 27 millions la woon boo génnee matériel bi ñu on woon produit ak matériel de nettoyage mi àll millions la woon. ñu ñëwaat bi ñëwee ñu waxtaanaa tax le ministre le maire Abdoulaye Diouf Sarr mooy nañ jëlaat si budget bi yokkaat génne pour jàppale population tey ñu génnewaat 20 millions 20 millions ya nga xam ne tey. dañ ko jëm ci population yi moo tax quartier Yoff yëpp oo nañ tey délégué de quartier yi oo nañ imam yi oo nañ président comité de gestion yi parce que ñun bëgguñu dem joxe ko dañ ko bëgg jox ñooñu xam ne ils sont en contact direct ñoom ñu mën ñu ko joxe la tey quartier yi nekk Yoff yëpp li ko daggee donc aéroport ba jàmmalaay muy 23 quartier quartier bu nekk dañu jox ay produits boo demee nga mën ko jox donc les populations loolu bi ñu ko xaymaa